waaw waaw ñu ngi bëre attention attention soldat du yëmbal Bébé Garga mi ngi koy jéem a manœuvrer Bébé Garga face à soldat du na ko Bébé Garga daan na soldat du yëmbal Bébé Garga mi ngi noonu bu kay baax na soldat du yëmbal Bébé Garga bu kay baax na soldat du lay da ka dem na jëli soldat du yëmbal ndeysaan Malick Combaan mi ngi noonu bu lay moom na daan Bébé Garga daan na Soldaru Yeumbeul jëli bu rëy na ko jël bu leer daan na ko jëli bu amul benn werante waaw waaw Bébé Garga daan na ko Bébé Garga mi ngi noonu daan na Soldaru Yeumbeul Bébé Garga daan na Soldaru Yeumbeul waaw waaw daan na ko jëli bu rëy jëli bu leer jëli bu amul benn werante sama comme ni ma leen ko waxee tey le samedi ñoo ngi au stade Iba Mar Diop le promoteur Sambay Fall à la tête de la structure sans production moo organisé Bébé Garga daan na daan na soldaaru yëmbal daan na soldaaru yëmbal ndeysaan mag yi dem na jëli ko Papis ko dem na jëli ko mag yi dem na jëli ko mag dem na jëli soldaaru yëmbal ndeysaan magam dem na jëli ko Papis ko dem na jëli ko waaw waw waaw waaw ndeysaan leer na leer na leer na ndeysaan soldaaru yëmbal bëre waat na daanu na daanu na daanu na daanu na mi ngi noonu Papis ko dem na jëli ko Laye Dakar dem na jëli ko